Sénégal 7, en tout cas, c'est parti, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes. Bonjour et bienvenue si vous nous ci Sénégal 7 ni ma ko waxee di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi fare ci wàllu teewlu gi di jaajëfal bu baax a baax ñoom ñi fare ci wàllu xarale gi tuuti Massamba Ismaïla ak képp ku nekk ci production beeg exploitation rédaction en tout cas bref toute l'équipe de Sénégal set ñëwati nañ ci active 7 di leen euh, jox nag euh, ay xibaar euh, on va passer au peigne fin lactualité de l'heure waaye nag surtout jaarale ko ci wàllu ci wàllu yoon ndaxte tey jii on va essayer de li nga xamante ne nii moom mooy investiture Ousmane Sonko bi nga xamante ne nii dañ ne dañ koo dàqandi kilifa ga jaar fa di gouverneur loolu lépp li nekk ci biir yëpp dinañ ko jéem a lañ ba xool naka la ak nu mu demee lépp lépp ànd ceeg suñu juriste maison consultant chroniqueur Pape Moussa Moussa maa mbégte baax a baax di la nuyu asalaamaaleykum. le plaisir est partagé Djibi maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ci nga xamante ne fekk naa leen ci Sénégal set personnel bi yëpp di nuyu sénégalais yi ñuy suivre ci réew mi ak ci bitim réew yëpp di ñaan yàlla lépp lu ñu fi waxtaanee doon njëriñu askan wi asalaamaaleykum wa rahmatulah. aleykum salaam wa rahmatulah lépp lu ñu fi eh, waxtaanee bu fekkee jub na rek ngeen xam ne yàlla suñu borom la bu dëngee itam ngeen xam ne ay jaamu yàlla yu toog la di waxtaan jëfandikoo seen xel ak seen xam-xam en tout cas parti eh, pour un nouveau numéro de votre émission Actu 7 eh, ni ma ko waxee noonu la noonu lañ koy dooree mooy li nga xamante ne ni moom mooy investiture Ousmane Sonko di leaderu Pastef waaye nag gouverneur de la région de Dakar moom. ma wax ko sax informe li population que des personnalités publique se réclamant du parti PASTEF on introduit auprès du préfet et sous-préfet de la région de Dakar des déclarations de rassemblement sur la voie publique envisagées les 15 et 16 juillet 2023 léegi mu tal ci nag ca fin ba nee na euh, fi mu toll nii daanaka lépp lu jëm ci loolu daal dañ koo tere Pape Moussa euh, c'est justifié wala naka nga koy mën a jàngate non je ne peux pas je ne peux pas euh, dire que ni c'est justifié parce que lu juste la nu justifié. Mmh. mais on peut expliquer quand parce que man jàpp naa ne euh, déjà la voie publique. lan mooy la voie publique parce que cérémonie d'investiture bi nga xamante ne Pastef woote na ko ce n'est pas sur la voie publique c'est un lieu fermé. stade Amadou Barry ce n'est pas ce n'est pas la place publique ça du du du ci yoon bi. stade c' est un lieu fermé non c' est amul bul amul explication. buntu bi. stade bi wax waxuñu ci buntu stade bi lay amee amuñu ci kaw tali bi lay amee ci biir stade bi lañu wax Pastef nekk un parti légalement formé ici au Sénégal am récépissé am déet. Mhm. donc kon bu loo bu buñ ne euh, sur la voie publique man ça ma pose problème sincèrement alors léegi nii dafa lañ jëm élection présidentielle 2024 un parti légalement formé am ay militants am ay sympathisants di mener ses euh, euh, activités politiques mais ay la yéwén kooku noonu ne la cérémonie d'investiture qu'est-ce qui est de plus normal ci loolu noonu mm-hmm. euh, ci noonu gis nga fi des cérémonies d'investiture pour d'autres candidats mm-hmm. et des cérémonies d'investiture pour ñu mënul doon candidat. ko récemment président Macky Sall avant. mu wax sax candidat te moom moom moom nee na moom yoon mayu ko mu bokk. waaw te pourtant ki nga xamante ne yoon mayu ko mu bokk kooku moom autorisé nañ bosam. ki nga xamante ne moom euh, war na bokk ñu ne kooku noonu euh, ben les explications sont aussi séduisantes que fallacieuses euh, jibi hmm. ay tàccu ca biir pale ba nañ ma génneel fan la demande lettre d'information rek amee te pourtant gis nga ko vous avez vu Sénégal ñëpp gis nañu ay militants wu Benno Bokk Yaakaar APR dem ba ci buntu pale ba hmm. di tàccu léegi xoolal la fossé rek quoi entre euh, applaudissement ak investir un candidat ci élection présidentielle 2024 tu vois le fossé mm-hmm. waxatuma laak nag géejawaay ba bii buntu palais mm-hmm. buntu palais <coughs> lu tax waxuñu lii ñuy wax ni yëpp mm-hmm. pourquoi les autorités administratives n'ont pas sorti des lettres comme ça pour essayer d'expliquer ça waxutuma laak loolu mais lettre d'information informer l'autorité administrative rek defuñu ko je les mets au défi nañ ko génne kenn du ko génne te ba buntu palais la ñu dem tàccu sabaru euh, clé de voûte des institutions président de la république génn wax ak ñoom hmm. am déet waaw hmm. ah, waaw léegi ñoo ñoo xamante ne nag ñoom tey ci dëkk bi dafa am euh, caste de sénégalais boo xamante ne lu leen neex def ba ci buntu palais hmm. euh, amul autorisation amul dara am na ñoo xamante ne beneen sénégalais boo xamante ne investir sa candidat investir sa candidat

il parle ah d'accord de, il parle des récentes déclarations peut-être que investir Ousmane Sonko moom moom kawoo la ci ñenn ñi moom Ousmane Sonko candidat kawoo la ci bopp ñenn ñi. kawoo loo bëgg a wax foofu. waay waay waay mooy am na ñoo xamante ne Ousmane Sonko candidat Ousmane Sonko président mais eh, saa yi ñooñu kaw kawoo lay doon si seen bopp mënul doon leneen. Hmm. non non parce que euh, déjà xam nga il faut être factuel. Hmm. surtout boo nekkee yenn autorités yi il faut être factuel et textuel. Hmm. ñu ne léegi Ousmane lii euh, Pastef woote lii Pastef woote kaw bi fii la waa ji waxee ne jour le 15 bii nii ñëw leen ñu yóbbu réew mi kaw amul. moo tax mu ne de plus des appels diffusés à travers les réseaux sociaux invitent les sympathisants de cette formation politique à investir d'ores et déjà les grands euh, marchés de Dakar et les principaux axes et lieux habituels de rassemblement. waaw mais léegi loolu loolu fan la man kan moo woote loolu quoi. nee nañ Ousmane le quinze bi ñu wootee bi Pastef foote yaa ngi gis euh, seen i affiche ci réseaux sociaux yi un peu partout ñëpp ñi ngi gis lan la ñu woote mooy kaale ñu investir suñu candidat yow tamit ji bi hmm. loolu moom moo xew c'est ça la réalité alors léegi euh, manifestation yoon dafa ne nii nga koy euh, interdire da ngay def lettre d'information par demande d'autorisation lettre d'information pour yëgle waaw d'accord constitution may sénégalais yëpp ci article dix am ñu manifester seen désaccord bu ñu mënti am ak nguur mu ne autorité administrative bi moom pour mu mën koo interdire pour mu mën koo neenal parce que interdiction sax ce n'est pas un terme approprié dafay fekk mu am risque réel de trouble à l'ordre publique loolu benn la risque réel de trouble à l'ordre public mais le risque réel de sax doyul pour nga neenal boobu euh, manifestation nee na bu risque réel bi amee da nga leen koy bàyyil waaye nag mën nga leen ko beñal bu dee les forces de défense et de sécurité doyuñu hmm. loolu ñaari yooyu cumulativement cumulativement moom moo war a mën a tax nga interdire manifestation loi moo wax loolu man waxuma ko. mais quand même am na droit interdire l'autorité. déedéet parce que ku ñuy demander autorisation mooy interdire. demandé wuñ la autorisation lettre d'information dañ lay yëgal. foofu foofu y' a y' a y' a un problème. y' a pas euh, man indiwuma problème. y' a pas y' nga ne indiwoo problème. man indiwuma problème de. ñoom buñ ne. Mhm. interdire nañu kon dafa war a nekk ci dañ koo teg ki xanaa sañ-sañ. waaw sañ-sañ bi dañ moo tax ma lay laaj ci wàllu yoon. dañ ne bi fan la nga xamante ne ni kilifa gi mën naa interdire. ak warul mën a interdire. le président Wade rek laay laaj. moo tax bi mu ñëwee au pouvoir mu ne léegi nañu génn ci régime d'autorisation et d'interdiction nañu accès ci régime d'information moo tax euh, euh, lettre bi ngay demande bi ngay introduire au niveau du préfet s'appelle lettre d'information da koy yëgal moom mu jël matukaayam bu dee jàpp na ne risque dafa am ci troubler l'ordre public day jël matukaayam mais bu dee euh, matukaayam boobu matukaayam boobu mooy lan mooy ne mu am aussi euh, suffisamment force de défense et de sécurité pour maitriser ce risque de trouble à l'ordre public bu ko amul léegi bu ko amul nag mu ne leen man ñaar yii nii aw ma ko dafa am risque de réel de trouble à l'ordre public te force de défense yi ñu donc kon munoo leen def manifestation parce que waxul loolu waxul deuxième bi bu njëkk bi la wax <coughs> mais risque risque mais waxul ay soldats yu manqué xaw ma ay force mais force de l'ordre dañ manqué ci réew mi ah, moom boobu ci ko donc kon euh, jàpp naa ne euh, l'acte politique de Pastef d'investir son candidat bu ñu ko neenalee aussi neen euh, neenal boobu noonu pour man dañ koo neenal rek uniquement pour stigmatiser wala bañal Pastef loo xamante ne c'est son droit le plus absolu parce que dégguma fi benn yoon fu ñu ne jour le 15 bii lañ installé kaw ci réew mi. Hmm. que moom ci beneen paragraphe mooy quatrième bi dama koy damay jeexal paragraphe ne or répondant à un appel à manifester du même responsable politique au début du mois de juin 2023 ne des individus s'étaient attaqués à des biens publics et des commerces et autres installations hein, euh, dont le seul tort des propriétaires était de chercher à gagner leur vie à la sueur de leur front à travers les investissements consentis après ñu wàcc mu ne aujourd'hui que le calme est revenu des indices font croire que ces rassemblements constituent de réels risques de troubles à l'ordre public ba pare mu ne ce d'autant plus que des acteurs de camps opposés ont également introduit des déclarations de rassemblement par endroit léegi nag fa mu jeexalee nag communiqué bi mooy mm, Alassane Sall quoi le gouverneur de Dakar mu ne fidèle à leur posture d'anticipation et de veille les autorités administratives concernées ont conformément à la loi parce que loolu intéressant ma bu loolu laa bëgg wax ma conformément à la loi interdit les rassemblements en question ainsi que ceux prévus par les entités adverses et instruit les forces de défense et de sécurité forces de défense et de sécurité ñëw na foofu à prendre les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre et préserver la paix et la quiétude léegi ci paragraphe boobu noonu mu ne conformément à la loi ban loi non loolu lañ ko war a laaj nee naa la loi bi li mu wax mooy les deux conditions là cumulativement moo mën a justifier ñu ne euh, euh, manifestation du am mais li nga liir léegi li ci am solo mooy nee na ay déclaration au juin. waaw lu mu jotee lii dafa mel ni Sénégal set ne dafay euh, organiser match nga ne ko non non parce que daawaati jéeg junior waxoon na wax joo xamante ne doy na wax donc seen manifestation mënul am keneen est rapport lu ñu wax juin moom lan la rapport ban rapport la am ak cérémonie d'investiture bu ñu wootee ci parti. ce n'est pas Ousmane Sonko c'est le parti Pastef du Ousmane Sonko intitut personnel mais le parti Pastef woote ne day investir son candidat dans un lieu fermé stade mais lii nii yëpp lu lu ko ban ban ban sens la am ci wax ji ay déclaration yu mu defoon juin déclaration yi mu defoon juin ci contexte juin la woon ci contexte complot politique bu ñu organisé woon la ci contexte euh, procès tappale contexte boobu la woon ça n'a rien à ak lii lii c'est la personnalité morale Pastef moom moo euh, xool par rapport ak coordination bi mu am au niveau départemental ak au niveau régional jàpp ne investir candidat am Ousmane Sonko def ko ci benn lieu fermé muy stade ay léewén loolu lan moo ci problème bi ci moment boo xamante ne yow gis nga ay sénégalais sans demande d'autorisation sans lettre d'information dam ba palais di tàccu ak fecc gis nga ko mais loolu loolu garaawul quoi mais jibi wax dëgg yàlla premier article constitution Sénégal dafa ne sénégalais yëpp a tolloo. Mm-hmm. dañ def benn distinction ci sénégalais yi. Mm-hmm. des principes sacro-saints yi nga xamante ne dafa nekk suñu bloc de constitutionnalité. Mm-hmm. ñu ne sénégalais kenn du leen a euh, différencier selon seen appartenance ethnique politique ak lu mu mënti doon mais tey jii nii la sañ la ñoo wax loolu noonu kenn euh, ci sénégalais yi sañ nañ leen wax ne leen yéen ñëpp tolloo devant la loi. bu amee ay sénégalais yoo xamante ne dañoo dem ba palais taxaw fa di tàccoo ko fekk am ay sénégalais yoo xamante ne bëgg dugg ci benn lieu fermé investir seen candidat ngeen nekk fa du fa dal après bu ñu waxee ñu ne force reste à la loi. à quelle loi léegi Moussa. man force force mooy des loi en parlant de loi. quand même léegi comme que nee nga solo disposition yi ñu jox ci li code bi wax wala yi ci li loi wax. constitution constitution plutôt li mu wax mooy mooy bi nga xam moo sut yëpp. Hmm. léegi li mu wax mooy. kenn warul tere kenn manifestation d'après yow. Euh, régime régime de d'information la nekk pas de pas d'autorisation. d'accord déclaration préalable. léegi su fekkente ne dañ ko interdit mooy euh, kilifa gi dafa dafa dafa dafa abusé ci yoonam wala. Mm, et puis bizarrement duñ la jox sax. Euh, le temps nécessaire de faire recours parce que yii nii waroon na am au mois benn juge de référé boo xamante ne boo <coughs> mosoon na fi dal foofu laa naroon a ñëw euh, foog naa la ni sa fa ne Amath Dansokho les partis de gauche dugal dugal seen lettre d'information ñu bañal leen ko ñu dugal recours un ñu ne leen seen recours bi amoon ngeen seen jaay. waaw léegi recours boobu fan nga koy dugal. cour suprême chambre administrative recours. pour ñaata fan lay durer. justement c'est ça le problème balaa balaa cour suprême bi passé na. d'habitude loolu lay am te dañuy ñëw ne la wax nga dëgg jox la dëgg ko mais jox la dëgg après. mais buñ la joxee dëgg xanaa dañuy daan kon ki la tere woon kon duñ daan kenn. ah mais attends duñ la jox ndàmpaay duñ la jox dara. ban sens lay am jour bi nga xamante ne war nga euh, manifester ñu jox la sañ-sañ yoon jox la sañ-sañ constitution jox la ko sañ-sañ nga bañ ñu bañal la ko dem ba mbir mi passé ñu ne la ah pourtant waxoon nga dëgg ban sens la am. mais loolu du la fay dara ci préjudice bi ñu la porté. ma ne bugguma di utiliser ay jargon juridique yu compliqué ak nangam pour sénégalais comprendre ci lu simple ay sénégalais ñoom ñoo jug dem ba palais taxaw foofu di tàccoo ko fecc ñu nangul leen ko ay sénégalais dem ba géejawaay dugg ci endroit fermé ñu bañal leen ko te arrêté Ousmane Ngom mi ngi fi. donc kon kenn amul sañ-sañu manifester mais ay ay ay ñoom Cheikh Thioro Mbacké dañ leen romb ñuy waxtaan. sami hmm. ñu ne leen rëpp jàpp. sëñ Assane Mbacke fam fañ ko jàppee manifestation amu fa ñu ne ko rëpp jàpp ay sénégalais dox ba pale taxaw fa di tàccoo ko ci kenn waxu leen dara. finalement c'est pas compliqué. c'est pas compliqué du tout. y a mm. deux sénégalais et il faut qu'on loolu moom mooy la réalité loolu fee la bu ñu koy dindi rek nañ ko dindi ak ay fee nañ ma wax li ñu wax amul et c'est c'est ce qui s'est passé. Mm. donc euh, li ma doon wax rek moom mooy ñëwaat l'acharnement injustifié sur Pastef qui est un parti. ki nga xamante ne moom moo taxaw ne la yoon mayuma ma bokk président Macky Sall moo la ko wax non teewut ay ñooñam jug nañ investir ko. Hmm. te foo xamante ne ce n'est pas euh, espace bu fermé comme stade. gis nga l'investiture du président Macky Sall ci Pikine am déet. Hmm. te pour pourtant kooku moom moo ne yoon mayu ko mu bokk. ak ki yoon mayul mu bokk moom ay ñooñam sañ nañoo jug investir ko kii nga xamante ne saa waay mais quand même quand même. mais mais <coughs> aussi euh, am na lu bon xaw ma ndax moo ko waxam déet dégg naa ñu ne euh, président Macky Sall nee na investiture boobu c'est de la provocation. waa foofu laa bëggoon nañuy waxee. Ah, moom mais foofu aussi c'est une calamité jibi parce que moom fi ko teg mooy koo xam te ne nii. clé de voûte des institutions yoon daf koo teg yoxo. clé de voûte des institutions. président de la république war na wax sur une chose pendante devant la justice affaire Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko c'est pendant devant mhm. ba léegi ñu ngi cour suprême mën na ñëw neenal décision bi ñu joxe euh, cour d'appel te man loolu laa gëm jusqu'à preuve du contraire loolu laa gëm damaa gëm ne cour suprême day ñëw dàq lépp lu ñu wax parce que nag attention waa ji bokkul de. kan ci euh, président Macky Sall. Ah. bokkul élection 2024 de. Mhm. du dugal kenn fi mu toll nii du dugal benn juge juge yi sañ nañoo ñëw nee na lépp sànni fële cassation casser décision bi. Hmm. ah oui c'est possible bien sûr. d'autant plus que ben euh, li li li li li li li euh, am ci affaire boobu man li ma jàpp mooy procureur dafa def appel pour ñu corser la peine te boo corser la pen du bokk moo tax ma ne la Ousmane Sonko la ñuy layam layamee bokkam ak ñàkk bokkam lépp lépp lépp lépp c'est le parquet affaire Mame Mbaye Niang deux mois lañ ko ferme dañ euh, ko dóor avec sursis loolu mënul woon yàq éligibilité procureur moo def appel procureur ba mu defee appel ca lañ yokk deux def ko six mois. mais bi mën a yàq. éligibilité boobu boobu it ban. mooy Adji Sarr. Adji la mu wax yëpp lañ neenal yëpp lañ neenal. mais teg nañ koy daan. daan boobu ñu ko teg it procureur la bul fàtte ne procureur moom moo évoqué corruption de la jeunesse. gis nga décision bi mu génnee ña doon wax naan juge d' instruction na corruption de la jeunesse leer na. nañ ne juge bi juge corruption de la jeunesse pour